fasiyene yéene ak yeen ci jotaay yi nga xamne muassasatul wafa'i bi xuququl iman mo koy and ak yeen ci diru yar koor gi tay ji di ñentelu fan bi ñu dalal suñu mbokk serigne Cheikh Diouf bayiko fele ci Touba fasiyene ñew bokk ak ñun jotaay bi and ak ñun jangat tomb bo xamne bu am solo la ci walu sharia muy walu sëy ak lépp lo xamanteni aduna ci euh niñ ko waxe won rek bal ñu ko jox kàddu gi man nañu wax ne rek fiñu baxo jaarale do mi soxne rek fofu lañu ko jaarale mu tambule njàngum alquran karim fële ci ñaarem waye nak motle ko fële ci xel koom ci sëriñ Xalil Mbàkke moom sëriñ Moussa Xafsa sëriñ Xalil moom tamit mooy ki nga xamante ne moo ko tàmbali njàngum xam-xam foofu ci xelkoom ginnaaw bi la jóge koom ñëw fii ci Touba continuer ci jàng ak di jàngale rek ubbi foofu daara joo xamante ne ma nga fay jàngale alxuraanul karim ak xam-xam tey jii nag mu bokk ak ñun bi. fasiyene and ak ñun ci tombu ba am solo ci dundut ab julit ni ko waxee muy neegu sey ak li nga xamantene ne ci aju kon inshallah allah danañu xamal sey buñ ko waxe ci l'islam lan moy ak ak yan jarim la am ak yan ponk la am ak yan charte la am ñaareel ba tamit dana ñew ñun ci pas-pas yi nga xamantene ne pas yu yaqku lañ koy tuddé dana ñëw ñun tamit ba tey ci lu aju ci wàllu fase fase ak lépp loo xamante ne aju na ci naka noonu tamit dana ñëw ñun ci jigéen ji bu fekkente ne dafa ko ak bërëm këram diir bi nga xamante ne moom la war a toog laata muy amaat beneen borom kër ñu koy wax yidda incha allah dana ñëw ñun ci tomb boobu ak lépp loo xam ne aju na ci kon waxtaan yi incha allah waxtaan wu am solo bu yaatu lay nekk xam naa ne rek ñu fàttali ne. ñi nga xamante ne andi woon nañ fi ay laaj yu aju ci wàllu fiq euh, kuréel gi nga xamante ne ñoo méngoo gëstu laaj yooyu ak tontu ko bu fekkente ne waxtu yi may nañu ko rek incha allah ñu tontu tey ci laaj yooyu kon ngir njëkkante waxtu yi dañuy jox kàddu gi sëriñ Cheikh Diouf ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee ñu fàttali mbokk yi rek ne suba sëriñ Moustapha Serigne Moustapha mbay Sam inshallah mom lañuy fassiyene dal fi jotaay bi muy waxtane khutul xulóob moy dundub ab xol kon serigne Moustapha mbay Sam on lay dal dalal suba fi jotaay bi kon ñu jox kàddu gi serigne Cheikh Diouf ci tomb am solo bi yàlla nako yàlla defal tax defal ñu ko alaykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa afdalu salaati wa taslimi على الذي خدمته تعليمي على الذي أورثني كتابه وخاد لي التاليف والكتابة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي mbokki جلدي yi طالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي nuyu mbokki julit yi ñu dégg ñëpp di ndokkeel mbokki julit yëpp ci weeru tedd wi ak ca barab bu mag bi di ñaan suñu boroom boole ñu defal ñu ak ndimbalam ba ñu am kàttanu nekk fi lim ñu fi indee te bàyyee ñu ko fi te mooy wéetal ko jaamu ko di jital ci nuyo bobu nak ki yalla jital ci bop yoon wi muy Cheikh Sidil muhtar di ñaan suñu borom yagal ko lool te mottali mbooleem ay mébétam te ñaan ko mom di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gep di nuyu bu baax itam di ndokkel di siara Serigne habbas ni kilifa waa bi di daal moxti di ñaan suñu borom sam ko lool te yagal ko lool liggéey li mu bëgg liggéey lépp di nuyu itam njabootu boroom daaru gépp di leen siyaara di leen ndokkeel bu baax di jaajëfal muassasatu alwafa bi xuququl iman ci liggéey bi nga xam ne jullit ñëpp lañ ci wóotu ba tey ñu boole ñu ci liggéey boobu nga xam ne ñëpp la war ñu leen ci ndokkeel di leen ci ñaanal suñu borom mottali leen ci seen yéene ginnaaw loolu nag ni ko suñ mudu karaa waxee te ñu indi tomb boo xam ne mooy dund gi nga xam ne doomu aadama dañ koy dund ci wàllug sëy ñu tàmbali ci xamle sëy mooy lan ak ay atteem ak xelal gi nga xam ne lislaam da koy xelal sax kii wuti soxna di ko xelal itam ki nga xam ne mooy maye soxna wax itam ay ponkam ak ay sartam ak ay njariñam ak xeeti sëy yoo xam ne nii baaxul ak ñaar ñi nga xam ne ñoo séq buumub sëy yi ñu war a sàmmoonteel ba ak tàqalikoo du am seen diggante ndax tàqalikoo gi da du neex lislaam dara waaye nag bu demee ba sës fi itam lislaam da koy yoonal organiser kon duñ koy defee ak ci nu muy nu muy tëdde kon loolu ci lañu ñëwee ci fase ak la ca aju ak edda la ca aju bu ñëwee ci ni ñu xamlee ab sëy mooy pas-pas boo xam ne mooy dox ci diggante góor gi ak jigéen ji ba tax seen diggante dagan nga xam ne loolu moo wuute moo wutale doomu aadama ak bàyyima ndax bàyyi ma moom ya ca doon góor ak ya ci doon jigéen amul lenn lu ñu doxale seen diggante lu leen di daganal waaye doomu aadama moom takkarim bi ko yàlla defal muy teral gi ko yàlla teral ak togg gi mu ko togg jëf tax na mu wut loo xam ne buñ bëggee daggan bi am noonu lañ koy jaare loolu moo tudd sëy bu ñëwee ci ab àtteem mooy cosaan li daa dagan yàlla moo ko yoonal wax ne fankihu maa taaba lakum min an-nisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa foofu la ko yàlla yoonale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam joxe ci ay ndigal ci wax ne tazawwaju alwaduud alwaluuda fa inni mukaasirun bikumul umama yawmal qiyaamati yonent bi di joxe ndigal ci kaw dagam na na ngeen di denc ku leen sopp te ngeen yaakaar ci moom njaboot ndax njaboot googu dama amal solo ba ëllëgee damay puukaranteeg yonent yi ci des maa leen ëpp ëppale aw nit wala yéen ma ëppale aw nit dañ ko fay jongante moo tax kon mu sant ñu ñuy denc ngir njaboot googu mën a am te mën a bari ba tey yonent bi fi mu koy yoon laate wax ne يا معصر الصباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أخد للبشر وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه, فعليه بالصوم فإنه له وجاء موحنا يين بوليم نيغا خامني ويس نين اك نداو با اكسي تي تولو تي ورا سي كوكو تي يالا مان لو نكو ديف دا تامل ساخ واخ لين تي اي ndax bu ko defee dana tax mën a sàmm boppam mën a téye ay bëtam ba du xool luñ ko tere mu xool ko ku ko mënul nag jar na sax ngay woor ngir yëg-yëg bi nga am ba aajowoo loolu mën a koor gi mën koo dindi ba tax nga mën a sàmm sa bopp yow itam loolu it mu waxaale sax lenn ci njariñ yi boo ko defee bu ñëwee ci foofu laay ñëwee ci njariñ yi ba ca gën a rëy mooy doomu aadama suñ borom bind na ko ay yëg-yëg yoo xam ne saa bu génnee ci ak ndaw da koy tàmbalee yëg bu wér a wér yëg yooyu nag yëg-yëg yooyu nag bu amul lum ko saafaraa mën na koo indil yeneen gàllankoor yu baree baree baree bare bokk na ci njëriñ yi sëy nag mu def ko ngir saafara yëg yooyu yooyu nga xam ne moom lay yëg ci jamono yi muy toll foofu ba tey bokk na ci ay njariñam dana taxa góor góorlu ci àllaaxira ndax bu ko nit ki defee dana gis ci boppam xeeti xéewali àdduna goo xam ne am na xéewalu àllaaxira gu muy tegtale te àllaaxira moo gën a yàgg moo gën a sax moo gën a neex kon séy bokk na ci xéewal yi am àjjana te misaal mi ñëw ci àdduna bokk na ci li muy jariñ boo ko defee fii ci àdduna dana tax nga xamne fa nga xamne amul fumuy yam amul metti amul coono amul dara xewal gi dana fa am te gogo fa am mo moo sax gi dana tax la la koy may muy wéetal yàlla ak sax ci jamako lol dana tax nga gën ci gor gor bok na ci ay ngeen ñam suñu borom nam gi nam doomu adama di fi nekk di wéy ba fam ko soobee lolé itam sëy ci yoon yiñ ko mëna jaar lolou mëna am ci la bokk. kon bu ko jullit bi defee mu ngi def sabab boo xam ne suñ borom man ci jaarale di fi saxal doom aadama ak nekkam di continuer ba baa ma koy soob bokk na ci ay njariñam bu ko nit ki defee bu am ci njaboot bu fi bàyyi koo aw turam dafay des aw turam dafi des saa buñ gisee doomam di ko tuddaat di ko fàttali ko waat ci ñaan dana yëkkati tamit ay daraja ndax nit ki dana am doom bàyyi koo fi dem alaxira doom yi yar gum leen yaroon ci diine ñu di ko ñaanal loolee di yokk ay darajaam ci alaxira ga mu nekk ba tax nit mën na fee jóge sax yor daraja yu suufe wala mu ñàkk ay daraja lool te bu dekkee am ay daraja wala mu gën a kawe ay daraja te lag ko may mooy doom yu mu amoon yar leen ci diine ñu di ko ñaanal ak di jëfandikoo yar boobu mu leen yaroon ndax alquran amna fi wax wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim jannata adnin yadkhulunaha wa man salaha min abnaihim wa aswajihim wa zurriyatihim kon loolu itam bok na ci njëriñ yi bu ko defé ay atem juróomi atte l'islam yëpp day gar sëy ndax mom cosaanam moy da dagam ci lépp ak ci ñëpp waye nak nit ñi dañ ci wuté am na ñoo xam ne dagan googu mu dagan ci mbëbëstal gi day soppiku ci ñoom dem ba war ci ñoom mënuñu ko ñàkk def am ñoo xam ne day dem ba araam ci ñoom sëñuñu koo def am ñoo xam ne day dem bañ sib ko ci ñoom mooy taamuwul ñu def am na ci ñoo xam ne dañ koy sopp ci ñoom te mooy bëgg nan ñu def ko am ñoo xam ne nag dagan gi ca la ñuy yem moom duñ ci àgg ci maraatib yooyu day dagan ci ñoom rek bu lu neexee def bu lu neexee bàyyi ma tàmbalee ko ci fi nga xam ne ki ko sëñ te def mu teel a xam boppam toog mooy koo xam ne bu am bu wutee soxna amul lum ko dundale kooku lislaam da koy tere mu wut soxna ndax lor du nar doomu aadama loolu bëggal ko njariñ du tax ñu may ko ko sañ-sañ bi kon dañ ko koy tere moom mu wut soxna gannaaw amul lum ko dundale ki nga xam ne itam am na lum ko dundale waaye lu araam la koy dundale kooku tere nañ ko mu denc soxna lu mel ne day sàcc ñu di ko dundale wala day jaay luñ luñ tere wala day siif alal jàmbur wala yu deme noonu kooku nag fi ñu ko koy teree mooy bu fekkee mënu ko dundale loolu lu dagan te bànnee xam tamit mënu koo mën na koo téye mën na koo ñàkk mën naa ñàkk denc di ko dundale lu araam waaye bu ko defut tamit nag mën naa téye boppam ki nga xam na nag moom bu ko defut du mën a téye boppam kooku danañ ko may sax mu ko dundale lu araam lool ngir itam sàmm bopp ngoogu mu sàmm boppam ki nga xam ne itam jubluwaay bi tax ñuy denc soxna amu ko mooy bu ko jëlee itam li soxna si di aajowoo du ko ko mën a defal ci wàllu dëkkoo kooku itam ba tey araam na muy jël soxna di ko lor ki nga xam ne dañ koy sib ci moom duñ ko tàmm mooy koo xam ne bu amee soxna du mën a jaamooti yàlla jaamu yàlla yi nga xam ne doonut yu war buy denc soxna mu ko koy teye def kooku taamu wuñu muy denc soxna waxuma jaamu yàlla yi tey de yi nga xam ne ay sunna la ak nawaafil ki xam ne itam aajuwoo wut am soxna ngir am na seen soxna sum jot a yor aajuwoo wut ku ca topp kooku itam ba tey sib ca topp ak ki nga xam ne bu amee soxna lum lim koy dundale lépp luñ sib lay doon kooku itam ci sariya sib nañ muy wut soxna ki nga xam ne mooy ku mujj ki nag mooy ku dagan ci moom ak kim sopp ak kim war koo xam ne yaakaaru ci am doom bu dencee soxna du ca yaakaara am doom tey nag mën naa téye boppam ba du caaxaan te bu amee soxna du ko tee jëf-jëf yu baax yi nga xam ne bokkut ak fara tey kooku dagan na mu wut soxna bu ko neexee def bu ko neexee bàyyi ba tey koo xam ne am na benn soxna wala mu am ñaar wala mu am ñett te am na lum mu leen dundale loo xam ne lu dagan la waaye nag yaakaaru ca doom kooku ba tey dañ koo daganal ci moom rek wala boog sax jubluwu caa am doom waaye da ko rek ngir faje ko bànneexam kooku ba tey dañ koy daganal ci moom rek xam dañ ko sopp ci moom nag taamu ko mu def ko lool moy ko xamne aajo won na ko te man na te bopam ba dox dox doxi te amna lum joxe ñu man ko may soxna muy ak can te buñ ko ko maye ba nopi amna lum ko meuna dundele lo xamne lu dagan lay doon koku nak mo xam yaakar na ca am dom wala yaakaru ca am dom sop nañu mu wut soxna ki mujj na nga xane mom sañu koo wut da war moy ko xamne ne na ko ne bu ko defut dana dox dox te am na lum joxe luñ ko mën a maye soxna muy ak can te mën na koo dundale ci lu lew kooku dafa war moom mu wut soxna ndax bu ko amul rek jàdd ci yoon lay def te lislaam dana ko jéem a dugalaat ci yoon wi ba may ko occasion boo xam ne dana ko dana mën a tax du mën a jàdd yoon koo xam ne nag moom muntatee boppam am na lum joxe waaye amut lu la lu dagan lu mu ko mën a dundale lu araam rek la ko mën a dundale kooku ba tey day war mu wut soxna ngir ñaari lor daa daje ci moom mooy bu ko defut dana moy te bu ko dee def ci lu araam la koy defee kon dañuy xool ñaari lor yi ban moo ci gën a woyof ñu ne ko jëfandikool boobu te bàyyi bi gën a diis loolu lañuy wax ci usul axafu dara rey ni saa bu ñaari ngaañ daje dañu xool ngaañ mi ci gën a woyof ñu may ko ko ba ci gën a diis nag ñu tegg ko kooku moo tax foofu bu fekkee mënta téye boppam bu ko defut faaw mu moy waaye nag lu dagan lu ko mën a dundale amu ko lu araam rek lu ko mën a dundale kooku dañ koy wax nag daa war mu dem wuti ko ngir lor jooju moo gën a woyof lor jële buñ ñëwee ci sart yi sart yi nga xam ne soxna suñuy maye war nañoo lijjanti ba xam sart yooyu daje na ci moom wala dajewul ci moom sëñ bi ñuy bëgg a may soxna itam am na sart yoo xam dañ ko war a lijjanti moom ba xam am na ko wala amu ba ca njëkk mooy ñoom ñaar nañ lijjanti ba xam araamante amut seen diggante ndax du caa gi ne ñëpp a sañ a dencante am na ñoo xam ne jege nañ ci wàllu deret ba tax ñu tere ñu dencante loolu nañ ko lijjanti am ñoo xam ne sax bokkuñ dara ci wàllu deret waaye dañoo bokkoon nàmp moo tax soxna si nàmpal diir boobu muy nàmpal saabu bu nàmpalee doomi jàmbur joo xam ne àggagul ci doy loo mën a lekk ak naan te du nàmp kooku moo kii mu doon nàmpal mu moom soow mi daanaka dañuy mel ni ñoo bokk benn ndey buñ màggee duñ mën a dencante loolu mooy indi araamante ci wàllu nàmpal ba ca topp mooy soxna si ñuy bëgg a maye ak kiñ koy bëgg a may bu ci kenn tawat tawat joo xam ne yaakaar nañ ne du ci wér da ciy faatoo ku tawat tawat yoo xam ne yaakaar na du ci wér da ciy faatoo kooku kenn du ko may soxna ndax sart boobu manqué na muy góor gi muy jigéen bi ba ca topp mooy ñoom ñaar bu ci kenn armal aj wala umra ku nekk ci aj du maye soxna deesu ko may soxna jigéen ju nekk ci aj tamit deesu ko maye moom itam ñaar yooyu wala ak umra ak aj ñoo ci yemoo bokk na ci sart yi ñuy xool ci jigéen ji mooy bu mu nekk ci idda na doon koo xam ne bu ko kenn masoon a yor ba bàyyi ko diir bi mu war a toog kenn kenn door koo war a mën a yoraat diir booba kenn du ko ci maye ba ko ñeenteel ba ko juróomeel boobu mooy bu mu am ñeent soxna ki ñuy may nañ xool ba xam am na ñeent wala amagu ko bu fekkee matal na ñeent dañuy wax na ko foofu la lislaam yemale lim bi deesu ko jéggi kon loolu mooy juróomi sart yi nga xam ne moom la ñu xool ci ko góor ki am ci yoo xam ne góor gee ko moom am ci yoo xam ne ñoo ko bokk am ci yoo xam ne jigéen jee ko bu ñëwee ci lislaam bi mu waxee nit ki fi muy waree amee soxna fi muy daganate moom ak fi ñu koy soppeek yëpp ak sart yi ba mat nag da koy orienté boppam na ko demal wutal soxna ci anam gii maanaam da koy xelal boy wut soxna nang ko tànni ni lolou sallallahu alaihi wasallam mo wax ne tazawwaj al mar'ata li maaliha wa jamaaliha wa xusniha wa diiniha fa alayka bi bisaati diini taribat yadak neena boy wut soxna conseil yi la ci jox moy na nga set ki ngay beug wut soxna na ñeent yi ben nak ci mom mooy na am alal wala mu am ab taar wala mu am ab diine walla jikko na nga xool ci moom yooyu bu fekkee gis nga ci yooyu yenn rek mën nga koo denc ngir loolee waaye nag yonent bi ne man nag ki ma leen di tànnal mooy ki am diine ndax diine moom ku ko am am nga lépp koo ko ñàkk nag loo mën a amati rek amu kaw lay doon waaye du am solo lool lool batay yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ci di xémem lo julli ñu ci denc soxna ak di leen xelal ci niñ ko mën denc ak nam gënee ci la waxé ne ad-dunya kulluha mataa wa khayru mataa'iha al-mar'atu as-saaliha nee na lépp xewal la lépp banex la waye na xewal gi ci gën am solo moy am soxna su baax kooku ñu bi mi ngi xelal julit bi buy denc kan lay denc moy soxna su yiw su bax yoonte bi wax ci benen hadith ne isa tasawwaja al abdu faxat kammala nisfa din fal yattaqi llaaha fi nisfi l baaqi yi bu nit ki dencee soxna dinem bu doon ñaari xaj benn bi matna na benn bee ci dess bobu nak na ci ragal yàlla sàmm ko ba tey yonent bi ci xeyam loo yi muy xeyam loo jullit ñu denc soxna wax na ci ne ñeent mooy texet nit ñeent yi ku ci am benn texe na àdduna te dana texe àllaaxira bu góor góorloo loo loolu lay wax naan arbaun min saadatil mar'i an takuna sawjatuhu saalihatan wa awlaaduhu abrara wa xulataauhu saalihin wa ay yakuna risquhu fii baladihi ñeent nit ñi yoo xam ne ku ci am benn rek texa nga muy am soxna su baax ba ko ñaareel mooy am doom yu baax ba ko ñettee mooy am xarit yu baax di jaxasoo nit ñu baax ni ba ko jut ñeenteel mooy toog fi nga dëkk di am loo dunde man ca yor seen njaboot doo ko doo dem di tukki di génn di dem fenn loolu ci màndargay barke la bokk ak taxe mooy toog fi nga toog li nga am li nga soxla lépp nga ko fi am ci sa dëkk tax sëriñ bi di ñaan naan wali yëhëb hidaayatan yaxbitu nii fiiha kasirun maaki fii watani maaki san fii watani mooy toog fi nga toog sa dëkk doo jéggaani dara da nga fekk lépp da la soxla lépp da la fekk si ba tey lislaam bi mu la waxee booy wut soxna ki nga war a wut mooy kan dalay wax sax yoon ni koy doxe ni ngay takkee ngoro gi sax dala koy wax loolu mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon Muxiira ibnu Sonba dafa am soxna sumu doon labat yonent bi na ko mbaa gis nga ko mu a ko gisaguma ko mun ne ko baal ba gis ko demal nga seetu ko ba gis ko kon kuy labat soxna baax na ca mu dem ba gis ko yonent bi na ko boo ko gisee day yàlla mën naa dogal seen diggante mu dem wax ko mbokki waajur yi soxna sa ñoom loola ñu mel ni xaw leen a neex muy gis seen sox seen doom ji soxna si nekk ci biir dégg ko muy wax ne yonent bi ko ko digal soxna si génnal boppam na ko gannaaw yonent bi ko ko digal bàyyi leen ko mu xool ma maa ngi nii xool ma mu riira daal di koy xool ba mu demee daan na kii kat ni mel neex na ma ñu daal di ko koy may soxna kon gis bi dana tax bu ñëwee nga mën koo yor man koo wéyaale waaye bu ñàkk gee gis amee mën naa tax nga doon séentu ci moom loo xam ne bu ñëwee doo ko gis boobaa nag ñagas-ñagas lay tàmbali jur sa diggante moom moo tax lislaam da lay xelal sax na da nga koy seet ba tey boo koy seeti waxul la nga xaabaabal daa am fu mu la yem loo ak noo koy seetee ji nee na boo koy seeti boo demee seen kër na nga tàggu ay waajuram ne leen seen doom ji laa bëgg a wut soxna waaye suñoo daje gone bu jigéen ci mbedd mi ngeen xamante lu yàgg wootan téléphone bay bëgg a déggoo seeni waajur ay waajuram doo di ko yëg loolu kenn sañu ko gis nga mu xiira bi ko yëntu waxee demal nga seeti ko daa dem ba ci ay waajuram mu wax leen ko kon li ñuy wax génn mu xew ci jamono ji nga xam dañu génn weer wala ñaari weer waajur dër koo yëg loolu mën naa indi ay gàllankoor ci biir sëy ba wala ay ñàkk barkeek yu deme noonu ginnaaw boo ko yëgalee ay waajuram ba waajuram jox la ndigal ci ne mën nga koo xool lislaam dalay wax na la tenqam ngay xool ak xar kanamam li nga xam ne sañ nga koo gis ci jigéen nga xam ne du awraam mooy xar bi ak tënk yi bu fekkee ab taar ngay ngay xool boo gisee xar kanam bi danga xam ba xam taaru na wala taaruwul wala façon taar bi nga bëgg am na ko wala ñàkk na ko bu fekkee da nga bëgg xool yaram wi nu mu mel boo xoolee tënk yi da nga xam ba xam yaram wi bu fekkee ab ñuulaay nga bëgg wala xeesaay wala yu demee noonu yooyu tamit mën ko caa xamee waaye nag sañoo caa jéggi yooyu rawatina nag di wéet moom kuñ la fasalgul nga di ko ngoro warul leen a wéet yonent bi nee na góor ak jigéen fu ñu wéete seytaane leen ñetteel te lu leen dajale rek moom lay fexe te néewaa na mu fexe ko fexe ma du antu waaye nag bu fekkee bëgg nga li la islaam wax xeeb nga ko na na nga xool tenk yi ak xarkanam bi kese yent yow bëgg nga lu bëgg ngaa xam xam bu wees loolu may na la nga xool jigéen goo xam ne wóolu nga xam-xamam nga ne ko soxna sàngam dama koo bëgg dama bëggoon nga xoolal ma lu weesu tenxam yi ndax moroomu soxnaam mën naa xool ci moom lu dul li tàmbalee ci jumba xam ba ci ay bëtuwa moom kon boo ci bëggee benn xam-xam man ngaa sant soxna mu xoolal la loolee ku la doy bu la ko waxee nga sukkandiku ci xam-xamam boobu loolu moom lislaam may na ko ba tey bi mu lay wax naa na nga ko wuti mën na la booy wut bu la ci jamaa la di fekk jamante bu la ci fekk na nga dem ci ku kenn nekkut nga dox fa li nga fay dox walla boog koo xam ne nag am na ñu fa nekk waaye dañu door a tàmbuli rek soreegun kooku moom sañ ngaa ñëw yow tam tànn sens ba xam yaa ngi ñoom kuy am ñu ne salaamaaleykum nga ne salaamaaleykum ñu ne salaamaaleykum ayib waaye ñu ne asalaamaaleykum ban leen waaleykum salaam wa ba waxtaan moom taxawal ba xam dañuy juboo wala dañuy waaye su ñëw faa ñëw rek nag dugg ci biir jaxasa diggante ba loolu itam day xàjjale ay jullit day ak mañal ci ab mën naa sax ab dëkk mën naa indi sax eh, ay ay ay xeex ci ab famille wala ay ay kon loolu moo tax lislaam di ko tere waaye nag maye na ko ci soxna soo xam ne daal yiw am ku ko bëgg a jël koo xam ne nii moom mënut a sàmm yiw tem googu te toujours ñu gis ko koo xam ne moom yiw googu bëgg ko ci soxna boo ko jëlee dana ko ci génn yow mi yiw nag kon lu mu ca sori sori bay bëgg a juboo sañ ngaa dem atte ñàkkal ko fexe ba jot ci loolu lislaam dana la ko may ngir nga sawee yiwam googu ndax man gisoon naa koo xam ne bàyyi na soxna ci digal ko xeesal mu bañ mu wàcc ko ca xam nga ku mel noona ba mu koy ba mu koy labat ba cee sori kooku xamoon danga xam ne kii yu demee noonu la bëgg sañ nga ko àtte ñàkkal ba nangu ko ci moom kon foofu lañuy ñuy foofu lay mayee ñu def ko boo ko defee kilifa jigéen ji moom itam lislaam da koy jox ay conseil na ko ñiy bëgg ci sa doom nang ci seet nangam ak nangam ak nangam boo ko ci gisee na nga ko maye boo ko ci gisul nag bàyyil ba gis keneen koo xam ne am na lu mel noonu loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne iza ataakum na tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawwijuhu bu kenn ñëwee di bëgg seen doom ngeen seet diineem ba ba mu doy leen seet jikkoom ba mu doy leen na ngeen ko ko may kon ñaar yooyu la wax nañ ko xool ci kiy bëgg sa soxna illa tafaaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir na lol nak sa bu ngeen ko defut fitna lay jur ci kaw suuf ak yaq yaq gu reey reey dana ko jur moy li xew léegi rek set gi set alal di laaj kooku lu muy liggéeyee fu muy dem yoyu yonent bi neena buñ ko seetee setun diina je ndeuk ak jikko je ndeuk fitna rek lay jur ak yaq yaq ta lolou ñun ñepp jakkalu nañu ak ci ponki denc ponk sëy mooy ay farataam comme dañuy wax ci faratay julli nga xam ne ñooy ñooy ñooy poto yi téye sëy bi sëy dañ koy wutal ñeenti poto daal koy kóoli ci seen kaw nag mu mën a taxaw ñeenti poto yooyu bu ci damm rek wala ñu mu toj rek sëy bi daa day màgg day yàqu ñeent yooyu mooy soxna si kilifaam moo koy maye kilifa kon ci la bokk kenn sëñ ta soxna te kilifaam mayu la ko wala mu jox ndigal ku ko ko mayel ba ca tege mooy ak can ak can mënta ñàkk ci ab sëy ba ca topp mooy ay seede faw waaye can ak seede moom ci pas-pas bi mën na ca ñàkk mën na ñoo fas te can ga du fa teew waaye dañ koy tudd wutal ko ab ab mën nañoo fas te ay seede duñ fa teew waaye nag bala ñoo jota dara ñoom ñaaram nañ na ko mbooloo seede ni diw may lañ ko diw ak diw kon ñoom sartu sixa lañ waaye duñ sartu rokk na maanaam ñoom duñ ponk waaye day tax sëy bi wér ak jigéen ji tamit na doon koo xam ne nii sart ya ma la waxoon daje na ci moom ñeenti juróomi sart yooyu ma waxoon ci ginnaaw bu ñëwee ci kilifa jigéen ji dañ ci sart juróomi sart juróom benn sart mooy kilifa gi na doon góor kon jigéen joo xam ne kilifaam jigéen la sëñu koo maye ci boppam faw day wut góor mu mayeel ko ko na doon tamit koo xam ne am na sañ-sañu soppax ndi ko ci alama alalam ci coobareem doonut koo xam ne lu mu yor da koy pasar pasaree wala koo xam ne des naa yemb lool kooku yoon day wax kilifaam mu saytul ko alalam saytul ko ay mbiram yépp saa bu amee doom wala kum koo xam dañ ko koo féetale mu war koo maye kilifaam googee moo koy maye wala mu joxe ci ndigal waaye moom du ko sañ a boppam ndax amul sañ-sañ boobu kiy maye tamit na doon ab jullit kilifa gi na doon ab jullit kon kilifa goo xam ne du ab jullit soxna soo xam ne waajuram du jullit wala kilifaam kooku waajuram du la ko sañ may ndax du jullit na nekk tamit mu kàllaf bu nekk xele mu kàllaf mu am xel na nekk koo xam ne nekkul ci aj nekkul ci umra ku nekk ci aj bu buy maye doomam na ko féetale keneen mu mayal ko ko waaye mu munu koo maye ku nekk ci umra tamit noonu jigéen ji ñu maye tamit bu mu nekk ci ak bu mu nekk ci umra waxoon naa ko ci sart léegi léegi kon ñeent yooyu mooy ponk yi ponk yooyu nag li ma la waxee léegi nag mooy moo téye sëy bi jën wu ci daanu rek sëy bi daanu lu mel ni ab euh, kilifa bu fekkee amul ci sëy bi wala kilifa ga sarte ñu waxoon matut kon sëy boobu saa bu ko yoon yëgee da ko war a tas donte ay doom judd na ci yoon daa war a tas sëy boobu ci fase la koy tase fase moo xam ne nii day faj fase moo xam ne bu ko bëggaatee da koy takkaat joxaat ko ak can waaye du ko mën a fay la ci ba tey sëy boo xam ne daa amut kilifa moom jigéen gi ñëwul boppam rek kilifaam yëgut tinut ba tey moom itam yoon da koy tas saa bu ko yëgee ak lu muy yàgg-yàgg donte sax njaboot gu bare bari judd nañ ci kon day aaju woon ñu xam kilifa mooy ñam kilifa jigéen ji ji ñuy bëgg bu fekkee am na doom joo xam ne nii nekk na mu kàllaf sart kilifteef daje na ci moom kooko mooy kilifa gi jiitu ci kilifaam yi ko war a maye mooy doomi boppam ji ki topp mooy ab sëtam moom soxna si ñuy bëgg sëtam boo xam ne góor la sart kilifa daje na ci moom bàyyi door cee topp bàyyi soxna si door cee topp kon bàyyi ñaar jiitu nañ ko waaye loolu nag dàqoonte lépp suñu war ma ji ñu baaxoo nga xam ne xam nga ñun fii suñu aada bàyyi nekk fi ba noppi doom ji di maye moom bëriwul luñ koy gis ndax war ma ji ñu def kilifa yi day wax rek niñ tegaloo waaye teewut kii sa kee mën na ko jiitu ba noppi kii maye comme bàyyi mën naa maye ba noppi te doom nekk fi loolu laa bëgg a wax ne mën naa nekk ayut jàllee ki ko war a maye mooy ku mbokkal ndey ak magam ju góor wala rakam ju góor du mbokkal ndey ak bàyyi te topp mooy magam ju góor wala rakam ju góor ñu bokkal bàyyi ka ca topp mooy doomi magam ju góor wala doomi rakkam ju góor te mbokk ak moom ndey ak baay ka ca topp mooy ju góor wala doomi magam ju góor te mbokk ak moom baay képp ka mooy maamam mu góor ki jur baayam ka topp mooy ki bokk baayam ndey ak baay ka topp mooy ki bokk baayam baay képp ka topp mooy doomi baayam li ñuy wax doomu baay ñun seen ñaari baay yi bokk te ñaari baay yi bokk ndey baay ka ca topp mooy doomu baay joo xam ne seen ñaari baay yi baay képp bokk ka ca topp mooy ku ko yor bu ñoom ñëpp amut dañu xool ku ko yoroon gannaaw kii amut yi yëpp nekku fi ku ko yoroon ka ko yoroon ba sàtt kilifteef dajoo ci moom kooku moo ko war mooy kilifaam ka topp bu fekkee yooyu yëpp amutoon attakatu jullit ñi moo koy maye ndax attakatu julli yi walli yu man laa walli ya la mooy kilifa ku amul kilifa bu dee ci jamono ji nag mooy kilifa diine yi man nañu taxaw attewaay at taxawaayu attekatu jullit bu fekkee lolu amu fa nak kon julit bu mu gis rek man nako may julit bu mu gis rek te jox ko ndigalul mayama ñu nak moy sakku ci mu may gi maye gi baba koku dana ko mëna may way seni ko may ci ludul nak di ci mom kon kilif kilifa yaa non kilifa yi tamit dañoo rawante kili ci kilifa yo xamne ne sañ ñoo may soxna sañ ñoo may soxna si te duñ ko am ñoo xam ne sañuñu ko am na ñett ñoo xam ne sañu ñoo soxna si duñ ko tàggu donte tàggu koo gën ñett ñoo mooy baay bàyyi sañ naa maye doom ju jigéen ji nga xam ne mësta am borom kër ak lu mu yàgg-yàgg nag donte am na juróom fukki at wala juróom benn fukki at waaye mësta am borom kër moom baayam sañ na koo maye te du ko yëgal ka mooy koo xam ne dañ koo dénk soxna si baayam bi mu la koy dénk dalaa wax ne man sama yoon nekkatu ci léppam féetalal naa la ko kooku ba tey sañ na ko maye ni ko baayam sañ a maye te du ko yëgal ke topp boobu bokkatul mooy jamono ya jaam ak sang di am ab sang sañ naa maye ab jaam bu jigéen te du ko yëgal waaye boobu génn na bokkatul léegi nag jaam ak sang yooyu lislaam daan wax amatul kon buñ ne force nag mooy daa am sañ-sañ bi rek te ñun buñu gisé suñu réew mi ni mu baxo ci mëna yar ci diin ak suñu kilifay l'islam yi ni ñu baxo yar nit buñ koy maye ci anam gog nga xam duñ ko ko yëgal dana fekk ñu yar ko ba soxna si xamne ki lu bax rek rek la ko bëggal du dugal mukk ci lo xamne gënut ci mom boba dana xolam dana mëna a nekk waaye lu mel ni léegi nga xam ne yu yu bari ci mel noonu wàññiku na di diisoog moom moo gën sopp nañ ko lool li koy sañe saña forcé nga tàgg ko ba soxna si nangu bu dee ko mës a dem kër la nag nanga ko tàggu ba mu nangu bu fekkee daa am kersa ba noppi waxut dara tamit mën ngaa jàpp na nangu na waaye ci kaw na xam ne na xam ne noppi gi mën naa wóotu ak nangu na ko xamal ne ko jigéen buñ koy mayee buñ ko ciy tàggu benn bu bëggee mën naa wax waaw bëgg naa bu bëggee tamit mën naa ne cell bañ a wax dara ñu xam ne bëgg na loolu nañ ko xamal soxna si bu ko xamee nag kon boobaa bu noppee danañ danañ danañ ko na jàppe ak nangu ne bëgg na waaye fekkee xamu ci dara nag kooku ak noppeem day mat a seetaataat wax ko nag faaw moom da wax lu leer ndax diisoo googu dana tax xelam dal moom soxna si dana tax tamit bu demee mu nekk fa nekk nekkin wu rafet waaye bu forcé gi amee ci lu dul yar boobu jiitu la muy jur mooy dafay nekk nekkuk dañu fay indi far force rek waaye man fii bu doon man dong du ngeen jot ci man dafay nekk nekkuk ñàkk pexe man loolu mën naa indi ay gàllankoor yu bare bare kon ñooñu mooy ñi nga xam ne sañ nañoo force bu ñëwee ci can gi nga xam ne mooy alal di ñuy joxe ci sëy bi moom dañ ko wutal fu muy yem ci gën jaa néew waaye gën jaa bare moom amut fu ñu ko yemale gën jaa néew dañuy wax ne mooy bu dee ci léegi rek ci gàttal mooy ñetti dërëmi yoon boo laajee tëgg yi tëgg wurus or buñ ko xellee lu muy jar buñ ko xelle woon def ko jaaro wala ceen boo ko doon jaay luñ koy luñ koy jënd loola jamono ju nekk rek mooy doon gën jaay néewi ak can dégg naa sëñ Abdourahman yaa na ko yàlla yokk wér mu ne biñ ko mujjee seet 3400 la tollooloon waaye matagutoon junni waye nak or mom xam ngeen day yéeg ko daan toujours kon waxtu wu nekk rek mën nañuy seet loola waaye can moom ñun suñu yaakaar Serigne Touba da cee wax demee ñun ci am ab tënk sax bu ñu ndax boo demee ci mañ mooxatul wal aju wal aju sëñ bi ma ngi cay wax ne fa'lamu anni nahaytu kulla man ta'allaqa bi ay yu'tiya imra'atan sadaqan zaidan ala miati dirhamin fi xaq fi xaq zawji alxani sëñ bi nee na képp ku aju ci man yaakaar ma tere naa la ngay ñaani soxna di joxe ak can lu ëpp ñaar téeméer bu fekkee ku am nga ku bari la nga di joxe lu ëpp ñaar téeméer ne koo xam ne nii nag am amam taxu koo demee noonu loxoom jotut gannaaw ni ñu koy waxee lool bum passé témir ak djuroom fuk lolou la serigne bi wax dal di wax nak faman aradal barakata wal manfaata falyaqif ala hasaynil adadayn kep ku bëgg sëy bi barkel te am njariñ ñaari lim yi ma joxe ci ko man bopam ak ku mënul bopam bum ko passé dal ci tek nak kep ko ko passé fa sa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a kep ko ko defut nak dangaa def loola neex lu wuuteeg ndigal boobaa nag da nga dajaleeg loola naqari ni nga xamee ne ku wuuteeg ndigal da nga dajeeg ndugal wala mbugal kon loolu sëriñ bi wax na ko ci can daal di wax na nag goro yi goro yi goro yi sañu ñëw soxna si bañ koo jox borom këram biñ ko may ci naan ko can gi matagut ba léegi joxe ko ba mat ba léegi wala ñu naan ko xaalis dong nga koy jox ak can loolu nee na goro yi sañuñu ko xaalis mën naa nekk marchandise muy jar lu tolloog lañ ci war a joxe mën naa nekk jëm kaw moo tax mu ne borom kër bi mën naa joxe ak can am marchandise wala ay fas wala ay nag wala ay xar waaye boobaa buñ koy xayma bu ko soxna borom kër bi xayma bu ko xayma ba xam fas yi muy joxe ku ko doon jaay dana mat gën jaa néew ak can wala du ko mat loolu borom kër bi bu mu ko kiy ñaan soxna bu ko xayma goro yi buñ ko xayma nañ wut ay jàmbur yu maandu ñu xayma ba xam ko waroon jaay lu muy lool ci bataaxal bi sëriñ bi doon wax ca la bokk mu ne itam nit ki bu amee soxna balaa amaat soxna na fekk kenn jëloon moom ak canam mat na ba noppi mu door caa leen man a ñaareel wala man a ñetteel wala donte sax am ñeenteel la kon loolu la sëriñ bi waxoon ci ak can sëriñ Fallou bi mu toogee xalifa xam nga xaalis bu njëkk ba ak léegi dañoo am ak yokk xaalis bi day dolli ko sëñ Fallou moom waxoon na ne ñetti junni la waxon nañ ko di joxe ci ko am ko amul junni junni ak juromi téeméer kon lolu man nañ ci dégg na ñaar ñaar téeméer yooyu xajna mom la xaymaa ci ñetti junni yooyu seigne abdul Lahad bi ñewé mom tam joxawon ne ñaar téeméer yooyee do nañ cosaan nañ ko delo ci wat boba nak ñu bari wiñ ci am moy dañuy boole li suñ fallu wax ak li suñ abdou lahad wax ndax ñom ñaar ñep kenn ku ci nekk jamono yi nga joxe ndigal yi ya fi suñ touba buñ koy boole nak kon dañuy joxe ñetti junni ak ñaar témir lool def na mo gëna leung ci barab bi murid yu bari bari ñetti junni ak ñaar témir dal kon doon ndigal loo xam ne mënees na ko joxe ci ak tan ak tan nak fumuy yam ap apam amut fi ba milliard wala ay milliard mën na koo doon waaye nag gënut de ndax imam malik comme ni sëñ bi waxee sëñ bi moom bëggutoon can ko bari ndax ñaar téeméer la wax imam malik radiyallahu anhu ku bañoon ak can ko bari la ndax dafa am benn xadis bu ibni xibaan nettali jële ko ci naa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu wax na yonent bi dafa wax ne bokk na ci sëy li koy barkeel jigéen ja bu fa amee njaboot ay mbiram yomb lu baax yomb ko lépp yomb ko mooy can gu néew ak coono yu néew ci borom kër bi ñu koy may mu ñàkk mu mu daj ci coono yu néew bañ cee ba bañ cee bari ay coono loolu dana tax soxna si yàlla defal ko barke ci sëy ba ba barke ba topp ak njabootam loolu nag moom la imaam Maalik daal sukkandiku te sëriñ bi itam ni mu waxee xadis boobu lay tegtala xadis ba mooy min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqiha ba tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne xeetu sama xeet bi suñu borom lu yomb rek la leen bëggal waaye lépp lu indi ak jafe yàlla bi leen ko bañal lool inna allaha taala radiya li haazihil ummati al yusra wa kariha laha al usra kon lii ñuy wax naan daa bëgg lu yomb ndeke ñun xeetu yonent bi kon loolu yonent bi ko waxoon bu yàgg nee na sama xeet bi moom lu yomb rek lañ bëgg moom laa leen ñaanal ñu am ko kon ku la wax da bëgg lu yomb nee ko loolu de du aw xas ndax ñun xeetu bëgg lu yomb lañ waru ñu bëgg lu jafe ndax lépp dañ ko yomal wa ma jaala alaykum fi diini min haraj yuridu llahu bikum yusra wala yuridu bikum usra batay waxon na naa na la ab sëy nangu nañu diko fas te ak du fa tew cyan gogu mala wax man na ñak ca jamono yeen koy fase waye nak nañ ko fa tuddu buñ ko tuddu rek ndika ndikaaw tafsir daj dik te loolu danaa ci dikk léegi sëy yu baaxut lay bokk nañ ko wutal ab àpp tamit buñ ko wutalee ab àpp tamit borom kiñ kiñ ji ku góor ki balaa seq ku jigéen ki dara na ko jox ak can seede tamit noonu seede sart la ci ab sëy waaye mën naa ñàkk fañ koy mayee fañ koy mayee kenn bañ ko mën na ko bañ a yëg waaye nag bala ñoo seq dara moom nañ wut mbooloo ñu seede na diw mi may nañ ko diw ndax seede li li ci lislaam jublu mooy dindi li tax ñuy bëgg bu ñuy mayee nit ñi fekke ko mooy boo ëllëgee buñ gisee ñaar ñu ànd ci mbedd mi xel du ci ñaaw ba leen teg baat bu ñaaw te teg baat bu ñaaw daa garaaw ci lislaam lool ba mën a indi sax am bëggal mu lay muñ lay muñ lay teg bu fekkee seede yi amoon na nag buñ gisee ñaar ànd xel rafet ci ba kenn du ci teg baat bu ñaaw loolu mooy xikma bi nga xam ne moo tax ñu yoonal seede yi moo tax nit ñi nit ñu baax ñi nga xam ne musuñoo xam li xew léegi mosuñoo xam ñaari góor ak jigéen di ànd te mayewuñ leen rawatina di wéet ak di dem di tukkee fu ñuy dugg ko génn wax nañ ne Sëriñ Abdou Qadir radiyallahu anhu màggal gi mu fi nekk xalifa wax nañ bi màgg jàlle daa wax ne màggal gi de moom tubarkal la ndax ndax ndax ñi ñëw ñëpp ñu indaale seeni soxna koo gis mi nga ànd ak pour moom góor gu ànd ak jigéen rek sa soxna la war a mën a doon te loolu bañ ko bañ lu mel noonu am moo tax ñuy tere ñuy yoonal ab seede ponk ñetteel bi mooy soxna suñuy maye nañ seet ci moom sart yi ba xam daje na ko wala dajewut sart yi naa ko ba ko ñeenteel mooy buñ koy mayee kilifa jigéen ji wala ki mu jox ki mu na wax ne sama doom ji may naa ko diw sangam wala mu ne maa ngi mayal diw sàngam doomam ji diw sàngam loolu moom waxin woowu munu cee ñàkk bu fekkoon dañu ñëw rek liyaarante kii liyaar na ko may ma kii liyaar na ko may naa la sayit amu fa faaw wax ji munu cee ñàkk kiñ doon may bu fekkee mu ñëwal boppam wala niñ ko xamee ñu nga xam ne daa am ñu ko fay ñëwal ñooñu itam nañ wax ne may gi nga ko ko may nangu nañ ko bu dee moom mu ne nangu naa ko bu dee ñu ko teew ñu ne nangul nañ ko ko loolu rek moom bu amee sëy bi taxaw na donte dañ doon caaxaan sax sëy bi taxaw na fi ne bu doon kafantoog ñun na ko may ma sa doon may naa la ko rek fi ne sëy bi am na nga ko adama doon kaf rek nag de yow yombal ko ko lool de déedéet lislaam day wax sëy bi taxaw na sëy moom ak fasee yam nanguwul kafant boo koy kafant rek muy muy muy am bu ko defee xutba nag dañ ko cee sopp rek waaye doonul lu ci mën a ñàkk doonul lu ci mënta ñàkk xutba xutba mooy li arab yi tudd xutba mooy nga tàmbalee sant yàlla seede seede julli ci yonent bi ak waare daa di waare tuuti daa di door wax nag li la tax a jóg mooy sàkku ci kilifa gi mu may la wala mu may ki nga teewal bu nekkee kilifa gi daal def xutba bi moom itam xutba boobu dañ ko sopp rek waaye dund loo xam ne lu mën a ñàkk la kon bu ponk yi jeexee ñu ñëw ci façon sëy yu bare bari yoo xam ne dañu baaxut ñu koy site ngir ñu da ko bàyyi xel la ci gën a am solo mooy bu fekkoon am rëcc la mu am muy njuumte wala ñàkk xam buñ ko xamaatee ginnaaw bi lan mooy ab at nuñ ko war a def loolu it day mat a xamaale la ca njëkk mooy can goo gii ma waxoon léegi na nañ ko canalu dagan bu fekkoon kii ñaan ci soxna ay keesi sàngaraam la indi na lii kan mooy can bi kon can googu baaxul nañ ko gàntu bu fekkoon def nañ ko ba nopp door koo yëg kon sëy boobee nañ ko tas bu fekkee joteeguñ dara nañ ko tas bu fekkee jote nañ dara nag nañ nangu loolee mu ko cane woon tam araam tañ léegi na ko jox ko cane li ñuy cane ay moroomam tam doon lu dagan ba tey can bi buñ ko wutalee ab app te app ba doon app buñ umpale man daal may leen ma ko danaa joxe nangam ak can waaye nag sama doom sàngam daa tukki kat amagut kayit saa bu amee kayit saabu bu ñëwee dinaa leen ko jox te xamagut kañ lay amee kayit loolu ba tey bu amee sëy boobu baaxut dañ ko war a dindiwaat bokk na ca sëy boo xam ni isin lu mel ni xiyaar mooy isin nga ne ku mel ni nga ne may ma may ma soxna si ma joxe nangam mu ne la may naa la ko nga ne ko nag waaye danga may bàyyi fii ak ñaari fan ma xool ba xam wala fii ak ñett fan ma xool ba xam damay damay damay nangu dama la ko dellu si waatal damay damay gàntu loolu ba tey euh, sëy nangu ko bu amee rek sëy ba yàqu wala ñu sartal ko sart boo xam ne boo bokkutal li tax ñuy maye soxna lu mel ne naan ko ñu la koy may kat waaye guddi ba guddi nga fiy ñëw bëccëg moom doo ko sañ ñëw wala bëccëg dong nga ñëw waaye guddi doo ko sañ wala mën ngeen ànd kat waaye du ngeen dem du ngeen dem fii ak du ngeen dem faa sart yoo xam ne mën a caa ñàkk loolu ba tey ba ta amee sëy bu baaxul yooyu yëpp ma la wax ay sart moom saa bu ko yoon yëgee di dindi sart ba bu fekkee wéetaguñ ne dindi sart ba bu ñu wéetee nag day dindi sart ba bu noppi nag ñu orienté ko ratifié ko yàqu-yàqu boobu ci amoon ba tey bokk na ci sëy yooyu nga xam ne baaxul mooy weccoo sëyub weccoo comme ñaari xarit rek nga yow daal suñu diggante àgg na foo xam ne moom xam naa ne sax dama lay may sama doom duma laaj dara yow itam nga jox ma sama doom duma laaj dara ndax suñ diggante àgg na foofu loolu lislaam nanguwu ko ndax sart ba ñu waxoon ci euh, ponk ba ñu waxoon muy ak can amut kooku kon yoon du ko nangu sëy boobu nag bu amee ci mërëj wala ñàkk xam lu mu yàgg-yàgg yoon da koy tas donte ay doom juddu nañ ci bu fekkee wéetagun nañ ñu tas ko moom soxna sa day dem loxoy neen kenn du ko jox dara bu fekkee wéet nañ nag dañ koy tas waaye danañ ko jox cani ay moroomam mu door a dem yoonam ba ca topp mooy ñaar ño xam dañoo weccoo ci ki maye doomam ki maye doomam wala ki may kum yoron wala ki maye kum yoron ñom ñaar kenn ku nekk joxe ak can dag may joxu ñaar fukki junni ma may la sama doom ji ma jox la ñaar fukki junni ma may sa doom ji loolu ba tay am waye nak sart giñ sart dag may jox nangam ma jox la nangam looloo yaq sey bi moom itam dañ ko wara tass tas ci ki dañ ko wara tass buñ ko tassé nak légui bu fekkee wéetagun nañ ko tass buñ wété nak dañuy bàyyi sëy bi mu continuer waaye lañ waxante woon ñaar fukki junni yooyee dañuy wax lu ko ëpp kenn ko ne joxe ko wala kenn ku ne joxe canuk ki ngay maye ay moroomam ñu leen baaxoo jox can boobaa bu fekkee wéet nañ noonu la ko yonte attee ba ca topp ci xeetu weccoo yooyu mooy danga may may sa doom ma may la sama doom nga jox ma can man nag duma la jox dara moom ndax sama doom moo gën a rafet sa doom wala moo gën a yiw kooku ba tey ka nga xamne mom joxewu dara koku mom ab seyam bu buñ wété ak buñ wéetut yépp dañ koy tass ki nga xamne nak mom joxewon na dara lam joxewon dañ koy wax mu joxe lu ko ëpp wala mu joxe cane ay moromam bu fekkee ba ca top moy sey bo xamne ni pass pass bi mo baxu koku mom lu mu yag yag buñ joté dara ak buñ jotewul dara dañ koy tass bu fekke yagul boobu dama jom bu fekke yagul dañ koy tass bu yagge ba am ñetti at nak mom ma des na bayyi mu continuer lu melni takku suuf lu xew ci jamono ji la takku suuf nga ñew di ñaan soxna na nañ mako may waye nak sama soxna sa ci kër ga mom bu mu yag bu mu yëg na yam sama digënté ak yeen yeen ñi sédé kat bu mu bu mu jip kaw bu ko soxna ci yépp wala bu ko wa dëkk bi yépp wala wa koñ bi wala ñëw tuddu nga xamna leena fixé na buñ ko yëg rek su ba am ci sey sey bobu baaxut léegi nag gannaaw baaxul te yàggagul nañ ko tas bu fekkee yàgg na nag lu mel ne am na ñetti at kon nañ bàyyi sëy ba mu wéy waaye soxna sa ak boroom kër ba ak ña ko seede woon ñëpp na leen yoon woo dumalu leen yar leen ba loolu buñ ko defati ba topp ci sëy bu baaxul mooy ab jirim ñu mayee ko jirim daa am sart yuñ ko wutal ci kilifa gi ko yor mu mayee ko ci noona ndax jirim lislaam da ko ñeewante fonk gis nga ko lekk àllam ni mu ci wax gis nga li yonent bi wax ana wa kaafilul yatiimi ka haatayni fil janna nee na maag kii yor ab jirim di ko toppatoo matal ay àqam ñu ñaar nii la ñuy jege àjjana nii la ñuy jege maag moom ci àjjana moo tax bu fekkee soxna si ñuy mayee jirim la bàyyam daa génn àdduna bala ñu ko maye nañ ci waxtaan ak moom ci teeg bakkanam ba mu wax ne man nangu naa maye leen may leen ma kooku nañ ko may koo xam ne am nawlee ma kuñ koy may tamit na joxe can goo xam ne xaalis lay doon te day teew te bala ñu ko maye nan dem ba ragal ne buñ ko mayee wut këpp mën naa dox cànki caaxaan ndax mii ngi dëkk ñoo xam ne nii dañuy fo te mën nañ ko yóbbaale ci fo moomu ñu gaaw rawale ko ngir maye bu loolu amagul buñ ko maye nañ ca diisoo àttekat ba wala kilifa diina ga nekk ci may gi ñu koy maye ndax kooku diisoo gi li muy jëriñ mooy mooy xool ba xam sox jirim bii war nañ koo maye wala waruñu koo maye ak kiñ koy may naw leen wala du naw leen ndax sart yi mat na wala matut waaye diisoo boobu moom dañ ko dañ koo soppi rek waaye bu amutoon tamit nag mën naa bañ a wàññi dara mu dem ba jirim bi yor na alal joo xam ne buñ ko mayewut mën na koo jëfandikoo jeex te buñ ko mayee borom kër alal jooju mën naa sàmm ba tey mën na mës na koo may borom kër ci anam googu ba ko ñetteel ci sëy yu baaxut yi mooy sëy boo xam ne pas-pas ba moo yàqu lu mel ne sëy bu amul kilifa walla sëy boo xam ne dañ ko wutal ab ab li ñuy wax mariage temporel li fi xewoon li fi indi woon coow bu ci ci jamono yee ci ginnaaw ci réew mi bu ne bu xëy rek jigéen nga sax ngeen daje nga ko léegi dama laa bëgg takk fii yëpp suba wala fi ak ngoon ñu fas sëy bi suba jot wala ngoon jot nga ngeen def li ngeen def nga daal di koy bàyyiwaat sëy boobu. mason na dagan waye yonent bi da aramalat sallallahu Alaihi Wasallam. sallam dal sey bobu amna bu ci bax amna bu ci baaxut bu fekke soxna si mom yegal nga ko ne dama lay tak ba app sangam lu app ba yag yag wala kilife soxna si wax nga len sen doom dama koy tak ba app sangam sey bobu mom munta bax sa buñ ko fasé ci anam ngoo tamit buñ ko wara dindi wat la koy baxal nak moy yow yow yow gi kese kese yaay fas ci sa xol ne man kat damay takk jigéen ji fii ak ñaari at ma bàyyi ko wala fii ak weer wala fii ak nangam waaye bu jigéen ji xam bu ay kilifaam xam loolu bu amee dana dagal ndax loolu ruxsa la ci ñi nga xam ne dañuy dem tukki taggatam ba fa duñ mën a ñëw lu mel ni lañ eh, doo am loola yóbbu wala loo yi nga war a ñibbee jafe te mën nga boo fa nekk boo deful loolu mën ngaa dox càng caaxaan waaye yoon da lay may boobu pour nga def loolu. bu defee bu ma ñëwee ci fase ak it l'islam li jiitu fase sax. daa wax ne ak sëy bu amee ci diggante góor ak jigéen nañ xam ne kóllëre gu rëy rëy dox na seen diggante fasal nañ leen ak buum jox leen war nañoo sàmm kóllëre googu bu baax sàmm fas fas boobu ba dara du ko fecc ndax wa asiruhunna bil ma'ruf te alxuraan bi muy leeral kóllëre gi ak li dox diggante seen ñoom ñaar da ko wax waxin wu diis daa wax ne na libaasul lakum wa antum libaasul la hunna nee na ku góor ki soxnaam daa mel ni mbubb mi mu sol mbubb jege na nit lool te laaj na ab toppatoo lool waaye soxna si tam këram daa mel ni mbubb am mbubbam koddaay loolu wan na ne benn koddaay wan na benn lañ wan na ne seen diggante lu mat a toppatoo la naka noonu kon jigéen ji war naa sàmm loolu ku góor ki war a sàmm loolu ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة kon ñoom ñaar ñëpp war nañoo muñ loolu bu baax di xam ne kenn ku ne di muñal sa morom ci na doomu aadama munta mat te nit ki loola naqar ci moom rek war ngaa mën a am loola neex ci moom nga muñal ko loola naqari ci moom loolu la yonent bi daan wax ne ab jullit bu mu bañ jullit bu jigéen jullit bu góor bu mu bañ jullit bu jigéen mukk ndax bu fekkee daa am loola naqari ci moom du ñàkk lu la neexee ci moom ndax nit mënut a maase sikkile lépp kon la la neex ci moom da nga koy muñu la la naqari ci moom loolu Serigne Saliou daana ko wax lu bare bari ci ni mu daan yare radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi daana wax ne gone yi ngeen di yor seeni melokaan day bari waaye melokaan wu leen ci naqar rek da ngeen koy muñu melokaan yi leen neex ci ñoom ndax ñu ñak melokan yu leen neex loolu itam ñaari way denc am te war nañ koo sàmmante seen digënté bu baax baax soxna ci sakku ngeerum borom kërëm lepp lo xamne gis na mëna indi jafé jafé seen digënté mu di ko wattandiku sax wax ne bu jafé jafé tambali am sax nañ ci téla juk ndax bay bayal problème bo gis day tambali ndank di mag di mag ba dijj ba reuy luy door a tàmbali nag nga nga taxaw ci effacé ko moo gën nga bàyyi ko mu doon na léng-léngeeral naqaree nga xam ne boo ko bëggee effacé moom ku ne dana ci amu yoon la alxuraan wax naan wallaati taxaafoona nuzuuzahunna faaxisuuhunna wahjuruhunna fil madaaji' wadribuhunna bu fekkee gis ngeen problème tàmbalee am sa diggante sa soxna danga koy waxtaan ak moom waxtaanu biir néeg nga waxtaan ak moom wax ko sa bopp wax ko li yàlla wax ci suñ diggante yàllaa ñu boole du caa gën ñun ñoo bëgg ànd rek ànd waaye yàllaa ñu boole ci aras lañ li olof di wax ci aras lañ takke woon sëy bi léegi nag ñu ñaan ñëpp war a góorgóorlu nangam ak nangam wax sa wax say waar bu fekkee loolu def nga ko jëriñu dara dalay wax na da koy gedd bu guddi jotee da koy gedd bañu am ci moom soxla loolu mën na koo taxa deltu gannaaw ci loolu nga ko doon waar te bàyyiwu ko bu fekkee loolu amul nag te yaakaar ne boo ko dumaa mën naa jariñ dara kon nga duma ko duma yi yem nag duma yi itam na la wóoroon dana jariñ dara waaye boo ko wóoroon ne boo ko dumaa nag comme léegi moom ay mbokk mën ñu sax pelante la yóbbu la police wut seen certificat médical boobaa nag kon boo ci amut yaakaar ne duma yi mën naa jariñ dara ëpp naa def kon loolu mooy yoon yim jaar bu fekkee moom jigéen ji itam gis na ci borom këram lu ko naqare na def ni soxna sa defon alquran wàcc nako waw kumba da am ku wax muhammad ibnu maslamata doomam ju jigen jo xamne rafih ibn ibnu moko yoron rafih nak dem ba gis na soxna sa dafa reuy wala mu gis ci moom yo xamne neexuko bam bekk ko fase soxna sa dal dina ko dama bëgg ñu waxtaan mu bismillah mu ne bëgg nga dimbale ma rek wax ma la naqare ñu waxtaane ko mu jeex loolu yëpp tey jigéen war def non waye ne ëpp mu fula wala ci kër la genn won loolu moy indi tas yu gaaw yooyu ba soxna soso defé loolu alquran da wàcc ne wa in imraatun xaafat min ba'liha nususan aw i'radan fala junaa alayhima ay yasalaha baynahuma sulha was sulhu xayr kon loolu soxna soso lako alquran alxuraan wàcce woon na ko nga def kat ni la kon aw yoon nañu nonu sa bu soxna ci gisee lu ko naqari ci borom kër bi bu yooyu yépp amul nag nañ yonne ay ndaw ci kilifa jigen gi yonne ay ndaw ci kilifa ku gor gi ñaari mbolo yoy daje waxtane problème bi nga xam mo am ci digënté mo am ci néegu sëy bi boba néewaana buñ ko waxtane lu alaf di wax reeru amul ñak waxtane rek am alxuraan da wax yuwaffiqillaahu baynahuma kon yàlla dana len deggolé deggolé ga nak tekki wul ne buñ waxtane waxtaanee ñu jubóo déggoo léegi li muy tekki mooy yàlla dana def li gën mën nañoo déggoo sëy bi continuer bu fekkee mënuñoo déggoo te mën nañoo tàqali koo tàqali koo bu rafet loolu ci tawfiq bi wax yoofiq la baynahuma la bokk bu fekkee loolu lépp na jëriñu dara nag l'islam day wax ne ku amul li nga bëgg am li fi sës gannaaw yooyu jéem nañoo lijjanti lijjanti mënta sotti léegi na ko ku góor ki jéggal na ko fasal foofu la fase di door a dikke fase nag day doon loo xam day dem ba ñàkk pexe rek ndax ab ànd moom yàlla du ko bëgg lool te bañ ak tàqale koo abghadul xalaali ilallaahi at-talaaq maa ahallallaahu shay'an abghada ilayhi min alxalaali min at-talaaq yàlla li mu daganal fase la ci gën a bañ ndax tàqale gi mu tàqal diggante ñaari jullit moo tax yonent bi waxoon ne de leen wattandiku fase ba dem ba sës bu mënta ñàkk ndax saa bu góor fasee soxnaam xaras day yëngatu loolu day jaayu aras laa wala tutaliqu fa na talaaqa yahtazu minhu al-xaras kon li tax mu yoonal ko mooy axafu dara rey na rek dem ba amul li mu bëgg mu xool ñaari li ci gën a woyof ndax dem ba jigéen ji déggootu leen ngeen kon nag di ko lor wala moo lay lor ngeen dem ba man cee gaañante loolu nag taxali koo taxali koo rafet da koy gën a woyof bu ko defee bala maa dikk ci fase ma leeral ne fase lislaam doon lu lislaam sos lu fi lislaam fekk la avant lislaam bi am fase amoon na waaye nag organisation moo ci amutoon dañ ko daan defee ñu leen neexa rek daanaka adduna bépp la fase amoon ba mu des ay benn benn xeet yu néew nit daana mer soxnam dàq ko génne ko te soxna su du ci am men pexe la ta lislaam di dikk li ñuy wax gerek xeetu gerek fassé démé won na ci ñom ño xamni ne wutu luñ ko won ap ap sart wutu luñ ko won ap teunk teunk l'islam nak fi mu ak yoy da ñëw mom organiser ko nakat du jëgëna gën a lu war am la dañu wara dem bam seuss fi bu demee ba mu sës bi tamit nag nañ ko defee nii ak nii ak nii ak nii boo demee ci diine yi njëkkoon lislaam muy masihiya diine yi nasraan moom injil dafa wax ne fase daa araam da ko araamaloon moom diine njëkk yi dañoo wan soxna su ma bokkasee takk lu mën a xew bu ngeen dee rayante tamit moom sañu leen a tàggali ko dañ itam képp ko xamne ne wàcc na soxna bu ko kenn mayati soxna jigéen jo xamne ne tas na tamit cib sëy bu ko kenn takkati ñom non la ko yoonale won bo deme ci yahudiya diine yi chief mom da da ko wéfal ba ëpp daa waxoon ne fase mom da waxon ne fase da ko yombaloon xam nga kee da ko teengal moom ne kenn sañu ko da araam kii nag da ko yombal lool na jigéen ci saa bu la neexee mën nga koo fase ba daanañ wax sax naan bu defee lu la naqari sax doonte jéggal nga ko da ko war a fase saa bu jàdd yoon nag da nga koo fase moom xam dañ ko yombaloon lool moom dañ daa wax sax bu jigéen gi boo ko yoree lu mat fukki at te amut ak yow doom da ko war a wàcc kon diine yi siif moom noonu la gise woon fase l'islam li ma la waxe woon léegi rek fase moom bëgg ko waaye nag du ko aayal du ko yombal moom daal nañ dem ba sës fi bu boobaa tamit da ko wutal ay atte baa wax ne bu demee ba fase sës fi wutal na ko ay atte fi na fase am na koo xam ne araam na mu def ko araam na mu wacc soxna si ci kaw ay sart bu fekkee soxna si mën na mën na koo yor di ko dundal ci lu dagal te bu ko waccee mën naa am mu dem dox doxi caaxaan tànk caaxaan kooku araam na mu koy wàcc da koy téye rek bu fekkee tamit soxnaam si daa toll ci jamonoy gis baax araam na mu di ko bàyyi bu ko bàyyee sax yoon da koy forcer ci mu jëliwaat ko ndax Abdullah ibn Umar defar na ko jamono yonent bi bi ko waajuram Seydina Umar laaja yonent bi yonent bi dafa mer lool keroog na ko demal digal ko ne ko jëliwaat bu ko jëlee na ko téye ba mu laab ba gis bax ba laabaat boobaa nak bu ko nexé téye bu ko nexé bàyyi ko kon yoon da koy forcé mu wat ko bu ko bayé ci jamono yoy forcé ga moy da koy wax ne ko dang koy jëli wat wala ñu wala ñu tejj la kasso bu bañé ñu tejj ko buñ ko tejjé ne ko koy jëli wala ñu bolé ci di duma ci kasso bi bu bañé ñu di duma diko ko bàcc bu fekkee nak bañ na duma nañ ko duma mu bañ yoon na ko tas naa ko far force yoon na ko fay la ji naa ko bokk fay la ji naa ko far force yoon day dem jëliwaat soxna si far jëliwaat sëy bi boobaa nag kon day saña seqaat ak moom la mu seqoon ak moom baatu yooyu daal fi nga xamee ne fase bokk da fi muy dagane ak fi ñu koy soppee am na foo xam dañ koy sopp bu fekkee soxna si day dox tànki caaxam sopp nañu borom këram jéggal ko bàyyi ko wala bokk da baye julli wala mu baye jaamu yalla nga soñu ko ci soñu muta koku kooku nañu nga wati ko waaye nag lu war de lu war ak lu ñu sopp amna koko koko ko ko ko bi nako sama soxna de mom day dox doxi tànk caaxaan rek du tok yonent bi nako bayiko ko mu ko ah, dama bëgg di mu kon kon bu dee def luñ ko tere lu melni ñak ñàkk ñak ñàkk jaamu yàlla ak ñàkk nango jang xam diineem dañ koy sopp waaye nag bu fekkee loola bëgg ko ci muy bi te mën koo wéyale doonu loo xam ne farfas da nga koy wàcc fasam min daganal mooy fasam sunna fase min daganal doon ñaari fase fase mu tege ci sunna ak fase moo xam ne bidaa bidaa la mooy bidaa sun sunna moom juróom benn sart lay am mooy nanga ko wàcc benn yoon te boo koy wacc na nekk ci ak laab goo xam ne séqu leen te dara boo ko ba topp mooy na ko fase fase bu mat sëkk bul naan ko fase naa la genn wàllu fase wala fase naa la sulusu fase fase bu doonee benn xaaj bi loolu yoon du ko nangu saa boo ko defee da koy mottali ba mat sëkk tey na fase soxna si lépp waaye bu mu naan ko fase naa sa sa loxo bi wala fase naa sa tànk bi loolu tamit yoon du ko du ko nangu bu ko fasee tamit li fekk iddaam jeexul benn fase moom bu mu ci dolliwaat beneen juróom-ñeent yooyu mooy fasam ni tege ci sunna juróom benn yooyu bu ci benn manqué nag fase moom fasam bi daa la yi ma wax léegi rek fasam bi daa nag ñii dañu daa daa araam ñii ne dañ koo sib fasam bi daa day sib ko ñaari xaaj bu aram ak buñ sib ñii ne daa araam bi dañ koo sib ponki fase ñeent la mooy fase ku takk soxna moo koy def soxnaam waaye ko yurut mënu koo fase kii fase tamit day ànd ak xelam koo xam daa wér di wér di xel kooku mun a fase kilifaam moo koy faseel waaye moom bu fasee du kont mu mukallaf lay doon gone gu am soxna goo xam nekkul mukallaf bu fasee fase du wér kilifaam moo koy defal loola dañ koo yiir ab jullit lay doon kon day ànd xelam xel moomee nag la ko tàggaleeg moom dañ koy seet bu fekkee lu ko yàlla teg la ak wéradi la bu fasee fasame du wéy du compte bu fekkee nag la ko tàggale xelam lu araam la jëfandikoo lu mel ne daan naan loo xam ne ko ko naan dangay ngay màndi ba tàggoog sa sago comme sàngara mu naan ko ba tàggoog soxnaam daal di tàggoog sagoom wàcc soxnaam wàcc googu day compte bu fekkee nag lim naan doonu lim jëfandikoo doonu lu ñu naan waaye ay doom yi ñuy màcc la lu mel ne dorog bi ñuy màcc wala sugu suñuy foon loolu moom day doon ñaari xaaj bu fekke da cee jëfandikoo lo xamne ku ko jëfandikoo mu tàggal ak sa sago bu ko ci l'accès bu day kont bu à lam ci nak lu yem la lo xamne a nit ak sagoom mu jëfandikoo ci far de dogal mu ko ak ba wa ma du ma du du kon lolu moy bu fekke nak lu lu lew am soow la rek mu upp wala mu nan ay compromis far mu ko ba ko mu à soxnam ba ma du ndax li ko tàggaleeg sagoom lu dagan la ba tey buñ ko forcé ci fase fase me du compte kenn ñëw na ko forcé ko na ko fase si wala ma rey la mu ne wax na wax ne fase naa ko boobu jubluwu ko ci ndax fase bokk na ci ponk yi da ko ciy jublu yow mi ko wax waaye kon force jubluwu ko ci koo xam dañ ko forcé ci teññuloo ko lu mel daa waatoon ne tey de bu bu génnee kër gi rek wàcc naa sama soxna si am ku ñëw yenn ko génne ko kër gi forcé ko ci génn kër gi ko du tax soxnaam tas ndax génn kër gi jubluwu ko ci bu ko defee ay donc fas tamit dañ koy wax dañ koy wax mu leer nañ wala mu ñu gaarawaale ko xam nga ñun suñu aada am nañ façon façon boo xam dañuy wax baal naa la wala jéggal naa la wala may naa la sa baat wala ku may gura na nga yëy wala wàcc naa la yooyu yëpp ay waxin la yoo xam ne bu amee rek fase mi daa daal di compte xeeti fase yi ñett la fase moo xam ne moom sëy bi la daa yalam waaye tasagut fase moo xam ne sëy bi daa yang rek waaye tasagut loolu la ñuy wax fasem fayle kooku lu fekk idda ji jeexul boroom kër gi mën naa dem jëliwaat ko bu fekkee génnoon na kër ga te warut a génn kër gi soxna si buñ ko bàyyee fase moo xam ne fasam là. fay la la mooy am fase moomu am mer la mu rek mu fi gaar moo xam ne ko sa bu ba bi te mer a tas waaye bi bu ci mer continué rek di continué arrêté rek lañ def du jeex ba ba baa idda ji jeex ci idda léegi kooku mooy fasam fay la bu ko def na wut ay yu seede ne fay la na ko ndax bu ko wutut daa di koy fas boppam nii rek mën naa faatu wala jigéen ki faatu boobaa seen wàllu donnante mën naa am ay jafe ndax nit ñi bu ñu xamutoon ne fayle na ko donnante du am seen diggante bu fekkee idda ji jeexoon na bu idda ji jeexagul moom donnante bu da am problème waaye bi idda ji jeexoon te wutul ay seede fay la ki boobaa donnante bi mën nañ koo xañ jigéen ji te fekk waroon naa am wala ñu jox ko ko te fekk wutoon naa am ñaareelu façon bi mooy façon moo xam ne moom réparé wees na ci moom dañ koy takkaat takk gu joxewaat can gu yees fase googu nag benn mu fase ko fase moom ne fasam fayla la ba idda ja jeex ba idda ja jeexee rek saye mën nañu ko war a fasaat canaat ko wala fase moo xam ne soxna si moo ko sàkk loolu la wax ñaan baat ñaan baat soxna soo xam ne moo ñaan baat benn daa jël alal ja ku góor ki defante moom mu fay ko ko ñaan ko baat wala boog sax mu ñaan ko baat te fayut alal bu fekkee ñaan baat gi góor gi da koy lor bu ko fayee alal góor gi wërta jël alal jooju bu fekkee nag lor waralu ko moom moo bëggatul sëy bi kon na rek mu ñaan baat kooku moom ba tey mën na koo jël alal jëm ko fay sañ na tamit nag ñaan baat te du fay alal kon fase moo xam ne jigéen jee ko sàkku fase moom day tas fay la du ca mën a nekkaat faaw rek buñ ko bëggaatee dañ koy doxaat takkaat ko canaat ko ba tey fase moo xam ne àttekat bi moo ko fase wala kilifa diina ji wala kilifa yi ko tekkoon ñoo ko tas bu fekkee ñoo ko tas takkaat rek moo ko mën defaraat waaye fay la munu caa amat xanaa leen li tax ñu tas ko mooy ku góor ki daa amul lum mu ko dundale ñu tas sëy bi jigéen ji dem jàpp idda laataa idda ji jeex ku góor ki am lu ko dunde dundale boobaa kon gannaaw idda ji jeexagul may nañ ko sañ-sañ mu dem jëliwaat ko dañ ko fasaat dañ ko canaat wala mu giñoon ne lu upp ñent wër du ci xek ak dara koku yoon da koy wax na ko ñeenti weer la yoon maye léegi nak li upp mom dang ci delu gannaaw kafara sa ngiñ boko deful yoon da tas bu ko defee bo yoon tas ko nak idda ja bu jeexagul mu nango kafara ngiñam bayyi lola loola wat gannaaw bo wa tey fay la dana mëna nek mo fiin u fa inna allaha ghafurur rahim batay ko xam dañ ko fassate jotey guñu mom dara kooku mën na su koo fayal kuñ ma ñaan soxna jotugut ak mom dara wàcc ko takkar rek lañ ko mën def waye mën na su koo fayal wat isa nakaxtumul mu'minati suma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha fassa nak ni ma ko waxe woon léegi benn ku góor ki wax ko waxin wu leer nañ wala mu gaarawaale ko digeenti waxen wu leeru moom leer na wàcc fasa laag fase naa laag bàyyi naa laag yëpp ci la gara wala gi nak mom num ko ko meuna gara wala bu fekke fasa la ci jublu rek fase la donte da ko waxoon may ma ndox ma naan te fekk ci jublu wacc na la sax bu ko joxe patum ndox bi rek mi am wala lu melni ni sama keur lolou bu ci fasa fase fasalee doom wala bok lu melni man nga dem seen keur ndax dañ ko def amé jafé jafé na man nga dem seen keur mën ngaa dem seen kër nag ba ma lijjanti kooku dañuy laaj ku góor ki ba xam fasala ci jur wala déet ndax xisa boobu xewoon ci Ka'b ibnu Malik biñ defee ñoom ñett ñooñu te yonent bi wax nañ leen gàddaay te wax leen ne leen nañ yebal seeni soxna nañ bàyyi seeni soxna beru ko nañ nañ nañ nañ téye seen bopp ci seen soxna biñ ko waxee Ka'b ibnu Malik daa laaj ne loolu fasale doon wala dama koy wàcc wala bokk doon ak wàcc biñ ko laaj yonent bi yonent bi daan ne nee leen ko dama ne ko mu téye boppam ci moom rek booba da ko wax ne ko demal seen kër ba yëfee lijjantiku ba soxna si demee seen kër jàpput ida defut dara kon foofu lañu xam ne demal seen kër moom boo jublul faset du ko doon boo ko jubloo nag moom la koy doon ba tey fase dana nekk loo xam ne dañ koy acc dara lu mel ni tey nga mere soxna si na ko yow daal tere naa la nga génn ba tey waaye saa boo génn tere na nga xam ne wàcc naa la kooku saa bu génnee rek yow nga xam ne sëy ba foofu la yam ndax li ko sar li ko ajoon am na ba tey koo xam ne daa wax soxnaam na ko wacc naa la wacc go wacc gu dog moo xam jotu nañ dara moo xam joteguñ dara ba tey fase moomu day bi bu fekkee tamit doo ko wax na ko yaa moom sa bopp wala moom laa fase man maa ko moomoon waaye moom la naa la ko léegi kooku moom soxna si balaa jotaay baa tas na wax lu leer naññ ba xam liñ ko moomalem jël na ko wala jël dañ ko wax na ko léegi yaay xool ba xam yaay fas sa bopp wala yaay bàyyi balaa jotaay ba tas na wax ne fas naa sama bopp boobaa nag boo waxee fas naa sama ñetti yoon bu neexee borom kër bi mu ko benn yoon laa soxla laa jublu laa jublu waaye jublu ma ñetti yoon yooyu bu dee ko wax nag na ko léegi am na fase fase moo xam da koy wax ne ko tànn loo naa la nga doon wala nga bañ koo doon boobaa nag moom soxna si benn la war a mën a wax ci josaay jotaay ba mooy na ko tànn naa doontuma sa soxna boobaa de doon sëy boo xam ne nii tas na deesu ko ma a baax na sawdi rek mën na nekkaan ndax ñetti fas rek lañ a jàppe ku góor ko bu naan ko jubluwuma ci woon loolu jubluwuma ci woon ñetti tamit loolu du ci jar dara faaw ñetti fas lay doon ba tey fase nangu na nangu na yónnee ndaw walla bind ab leetar wala bind message man nga koo message jigéen ji wala nga bind kooku leetar wala nga yónnee ndaw bu fekkee da nga yónnee ndaw moom ndaw li bu àggee bu àggut yépp jeex na bu ndaw doon dem ba nga yónni nga yónni ko Touba mu dem ba Misra wala Daaru Rahman bu suñu Fall Asta Dieye nga woo ko téléphone na ko far ko bàyyi déedéet bay yónni mbuus bu xasee départ ba dem rek moo xam àgg da xam àggut fase ma am na bu fekkee da nga ko bindoon leetar jox ko ko nag war koo jox jigéen ji nag saa li fekk jigéen ji jotugu ci ba la neexee delluwaat ci ginnaaw na woo na ko bàyyi ko moo xam jigéen jotugu ci wala kilifaam li fekk jotuguñ ci rek fase ma day daal di du compte waaye bu ñu ci xasee moom compte bu fekkee ba nga koy bind nag da nga caa nag ak dog lii daal moom moom wàcc naa ko daal di koy bind ci dog kooku moom doo ko mën a fommaat boo mu doon ak dogu nag mën nga ko bind ba ci yàgg nga xottite ko laa da nga koy jox kenn laa nga koy jox wala nga jox kenn mu ko yëti àggagul nga delluwaat ci ginnaaw loolu mën naa nekk bu ko defee ma jeexalee idda muy diir bi nga xam ne Euh, bu ñu bàyyee soxna si moom lay toog door a sañ a amaat borom beneen boroom kër loolu itam xikma bi ci nekk mooy gannaaw moom amoon na boroom kër te ab ànd doom dana ciy faral di juddoo kon bu ko bàyyee nañ ko bàyyi mu toog diir boo xam ne kee ko bàyyi ndax am na jëlee na ci ab ëmb wala jëlewu ko ci. bu fekke jëlee nako ci dana dikle ci atay bu ko gun nak ñu jox app bo xana bu ko toge dana ñu danañu na nañ wu ko ci bo am mëna dem bu amé kenen ku ko bëgg nak man ko ñu man ko ko may ak ñi nga xamne tamit bu ñu leen bàyyee toogaay boobu di di xaar duko ko jar du jar ci ñam kooku idda waru ko ak kuy wu tamit lan la wara a idda amna ñetti ñetti ñoo sabab ñetti ñoo sabab ba ca njëkk mooy soxna soo xam ne borom këram daa faatu faaw mu iddaw mooy li ñuy wax muuru ñun wala liggéey danañ ci dikkaleeg nan la koy defe wala soxna soo xam ne borom këram da koo wàcc da koo fase kooku itam mu toog diir boobu sëy boo xam ne dañ ko tas sëy bu baaxut tas ko kooku it faaw dana ca am idda ñetti xeet la jigéen ñi ñetti façon lañ ci bu ñuy iddaw soxna si nga xam ne. nekkul mag lool waaye nekkul ndaw lool daa ne ci diggante bi ndax kooku nga xam ne mu ngi toll ci gis baax ak gis baaxam weesoo gut soxna soos bu ko boroom këram bàyyee te fekk lislaam waxoon na ko nan la ko war a bàyyee la ca gën mooy mu bàyyi ko ci ak laab goo xam ne jotu jotiwu càng moom dara bu boobaa nag laab googa bu gisee yeneen ñaari mbërëg ci kanamam rek balabar rek idda jeex na salaasatu xuró wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salaasata xuró ñet lab lab gogu da koy weññi wala ndax du tutak mom dara bu demee ba lab gi jeex mu gis bax labat ba gisat bax bala bu ñettal ñett ndaayu ba amee rek lu toll non la iddaw ki xam nak mom day doon gone go xam agagul ci gis bax wala mag mi nga gis bax koku bu ko borom kërëm waccee ñetti weer lay iddaw wallaahi lam yaxin na wallaahi lam lam ya is na ñaar ñooñ ñoo bokk atte ke ca topp ñetteelu soxna si mooy soxna si xam daa ëmb boroom këram wàcc ko kooku moom am doom fekk amul doom rek iddaam jeexagut bu amee doom nag lu mu jege jege idda ji jeex na fekkoon dañ koo borom këram da koo may baat ci suba gi ngoon gi mu am ci doom kooku iddaam yax na bu subaa bu gisee borom kër bu ko neexee ñu may ko ko ki xam ne dañ ko fase tamit daw ci ay laab bu fekkee mi ngi gis baax bu normal kooku ñetti laab yooyu mënut a ñàkk donte sax bu gisee baax bala ko gisati day yàgg lool ndax dañ ciy wuute am na ñoo xam daanaka at mu ne benn yoon mën nañ ko cee gis ci lu leen yàlla bindee boobaa nag kooku li muy yàgg-yàgg faaw mu toog ñetti laab yooyu wala koo xam ne day nàmpal nga xam ne bu ko gisee bala ko gisee te day yàgg kooku itam bu iddaw faaw mu toog ñetti laab yooyu wala koo xam ne ak wérid yoo tax mu yeex gis baaxam di yeex wala koo xam ne deret jeneen judut ba dereti baax da génn ci moom doon jàngoro ci moom te mënu koo xàmmee ak deret baax ji ba xam lii ci deret ci jàngoro ji la bokk wala lii deret ci baax la kooku moom ba tey xalil nee na bu fekkee sabab waralu ko xàmmee wut ñaar deret yooyu te yàllaa ko ko wala boog deretam daa wala tawata ko waral kon juróom-ñeenti weer lay daw kooku nga xam ne xàmmee wut ñaar deret yi juróom-ñeenti daw. jurum ñent weer bu jeexee mu dëkk ci ñett weer yo xamna lay daw juróom yi da koy wóorlu ndax jurum ñent weer xam ëmb ci la baxo diir ci lu gëna nak bu jurum ñent weer yi matee nag te gisul yëgut ci mom ëmb mu toga yeneen ñett weer yo xamna mo do doon idda ci kon juróom-ñeenti weer yi néggandiku lay doon ñett weer doon idda am ñuy boole lepp nak na menn at rek lay doon day tok menn at ko xamna nak dañ ko fase tamé gis bax waxtu bax wa jot gisuko day toog rek ba am lu ko wiir ci ne ëmbut benn saa bu gisee baax ma na caa sukkandiku xam ne kon ëmbut wala boog mu mat mu toog lu mat juróom-ñeenti bu juróom-ñeenti weer yi matee nag te léegi mi ngi sikk sàkka ba xam ëmb na wala ëmbul kooku day toog àpp bi gën a yàgg ci ëmb àpp bi gën a yàgg ci ëmb nag nee na ñi naan mooy ñeenti at ñi naan mooy juróomi at bu toogee loolu moom dana ci xam lu ko leer nañ bi ki nga xam ne moom borom këram dafa faatu iddaam la ñuy doon kooku ñeenti weer ak fukki fan lay iddaw moo xam borom kër ba wéet naa ak moom moo xam dañ ko ko may jotti wéet moom far génn àdduna faaw mu muuru ko ñeenti weer ak fukki fan. bu ko defee loolu itam ma bi tax euh, ñu yonal ko noonu dañoo wax ne ab ëmb balaa yëngu. di manifesté wu ba xam ne ëmb am na faaw de mat ñeenti weer moo tax ñu ne bu borom këram faatu ne toog ñeenti weer boobaa dana dana yëg ci boppam ba xam jëlee na ci ëmb wala am na ci ëmb wala amu ci ëmb fukki fan yi li tax ñu dolli ñu ne mooy weer mën naa am mu manqué moo tax ñu dolli ci fukki fan ngir lu gën a wóor bu amee bis yu manqué fukki fan yooyu bis yooyu mën koo mottali moo tax ñu ci dolli fukki fan yooyu wala boog am na façon ëmb yoo xam ne dañuy yéex a yëngutu mën man ñeenti weer teg ay fan ñu door a yëngatu loolu dañ ko cay bàyyi xel moo tax fukki fan yooyu lislaam di ko ci teg ki nga xam ne nag borom këram daa faatu muy daw kooku war na caa boole di ñaawlu li ñuy wax ñaawlu ñaawlu nag mooy bàyyee defaru bàyyee toilette soxna si borom këram faatu diirum ñeenti weer yooyu ak fukki fan yooyu bu ci defaru nay sol sol mu may bu mu diwluy xen kenn men mandar ga day mo wonana rek ki mi ngi defar ci jëmmam ji dara ci bopam ci walu walu lu mën indi diggante goor ak jigen lolu nako watand lolu moy mooy lo rek moy ñaawul nak, waye bi day ci duggal yépp bokku ci kuy ñaawlu man na dem marché ba man na doxi soxlam liñ ko tare moy bu mu fanan àll bu mu genn genn bu sori lool lool waaye nag yi ci xew léegi di teg ay paakaak di yeex a julleeg loolu moom lu araama araam sax la am na ci ñoo xam ne jullit timis wala jullit suba buñ dee muuru dañuy bàyyi ba muxtaar mi jeex takk ak dërër door koo julli loolu moom bakkaar bu ko gën a màgg mënu ko mënu koo passé wala ñu naan la da ngay bàyyi jëw jëw moom ku ku borom këram di dund tamit dañ ko ko bàyyiloo jëw ku borom këram di dund tamit dañ ko bàyyiloo ku borom kër dañ ko bàyyiloo kon muuru ak bàyyi jëw wuute jotewuñ dara do wax do dugul sa yon nekkut ak melokaan ñu ci wax yépp mom islam mom laata borom kërëm di faat dañ ko téré won niñ ko téré ñi nga xamni amuñu borom kër ak ñi nga xamni seen borom kër nga dund kon loolu lañ indi won ci tomb yi ñu doon jema a di jéggulu borom xam yi fi teew yépp ma ngi gis sëriñ xaadim mu sëñ Moussa Habsa ak sëñ Ahmadou borom xam yi fi teew yépp ak sëñ Amdi Mbàkke ma andal mu jégué Touba nga xam ne dañ doon jéem rek di ñaan suñu boroom dolli ñu ndimbalam ak tawfeexam ak barkeem ci barkeb Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf Serigne Cheikh ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu andil tey te moo aju ci néegu sëy ak lépp loo xamante ne euh, aju na ci ci wàllu charia te nga andi ko ci anam goo xamante ne anam gu matale la anam gu leer la tamit teg ci. lépp tënku rek ci ni nga xamante ne noonu la ko chariatul islamia tëdde kon ci turu muassasatul Wafa ko xoxo fi iman ñu ngi lay sant cant goo xamante ne am na fu mu tàmbale waaye am na xam naa ne ñu jéggul rek ci mbokk yi nga xamante ne ñoo fi indi ay laaj yu aju woon ci waxtaan wi ndax dafa am ay laaj yu bari yoo xamante ne ay mbokk dañoo sàkkoon ñu leeral leen ko te mu aj ci wàll fiq te juróomi fan yi ñu waxoon ne tey dañ ci tontu kon dañuy jox sëriñ kàddu gi sëriñ Abdou Khoudoss Mbacké su ko defee mu tontu ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiq laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi tamit incha allah dis na ko jox comme ci wàllu fiq la dis na ko jox sëriñ Abdou Khoudoss su ko defee dana ci gëstu incha allah fan yi incha allah dana tontu ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi xam naa ba tey ñu sàkk ci mbokk yi rek mbokk yi nga xamante ne ñooy bind laaj yi ñu koy bind ci anam goo xamante ne dana xaw a leer ci ñi nga xamante ne ñoo koy jàng nañ niñ koy bindee mu nekk anam goo xamante ne anam gu leer gu neex a jàngale nekk kon ñu jox kàddu gi sëriñ Abdou Khoudoss su ko defee mu ñëw ci laaji fiq yi nga xamante ne moo fi doon ci fan yi ñu weesu a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci weer wu tedd wi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla noonu yàlla dolli jàmm ñaanal sunu kilifay diine yàlla yàggal leen fi lool te ànd ak wér oustaz Cheikh Diouf ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan wi ci turu muassasatu Wafa bi huquqil iman waxtaan wi am na solo lool te loolu laaj yi firndeel na ko waaye ni ñu digge woon mbokk yi ni tey jii ci laaj yi fiq yi la ñuy ñëw rek dañuy jëkkante waxtu yi lu ñu ci waxtu yu may rek ñu exi ci laaj yooyu inshallah seigne sëñ Abdul Xudus mbokk mi ne na ginaaw bi ma rafet lo waxtan wi daf doon laaj ki nga xamne dafa wor ba yàgg ba ngoon mu dok koor gi te teyiko muy laaj ndax day continuer ba koor gi jeex mu fay ko wala day dok assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu oustaz ñi ngi rafetlu bu baax waxtaan wi ci oustaz Mohamed sëñ oustaz Diouf waxtaan wu leer wu am solo bi mu ñu dikkal ci nikaas di ñaan yàlla dolli ko tawfiq ci liggéeyam laaj bi nag mooy bu fekkente ne nit dafa woor dokkooram te teyu ko mu benn mu jamuj wala mu fàtte kon bu boobaa day continuer jàpp ndax ormay weeru koor wi te bu koor gi jàllee mu fay ko fay bis boobee mu dogoon loolu mooy àtte bi ci ngirum Malik mbokk mi mu ni damay laaj dañu wax ne ku amee booru koor sàggan fayoo ko ba weeru koor wi del si soo koy fay da boole fay ak joxe mudd muy laaj ba xam waajooju bu fekkee dafa sàggan ba weneen koor weneen weeru koor ñëwaat ndax kon mudd ba day yokk wala du yokk ustaas lislaam diinuna mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli dafa bëgg attewoo ci xel moo tax mu jàpp ne mudd yi ñuy lale boo fekkee da sàggan ci fay sa bori koor ba koor dellu ñu ne la danga war bis bu nekk booy woor nga leel mudd am miskin ba ba weer way mat bu fekkee dangaa ngaa sàggan ci fay weeru koor ba weeru koor wu dellu si boo koy fay noonu ngay lelee moom nag mu defee ne boo sàgganaatee ba waneen weeru koor dellu si mudd yooyu da loolu atteb la bëgg dellu si waaye euh, fuqahaw yi àdduwuñ ci kon li ñuy yam rek mooy mudd moomu nga xamante ne moom lañ digle te bañ caa dolli dara ci bis bu nekk ci fay weeru ba weer wa dellu siwaat kon ki amee booru koor sàggane ko ba koor gi dellu siwaat buy fay da cay booleeg di lele donte ñaari koor wala ñett jàll na ginnaaw ba it mudd bi mu fa bi mu doon joxe rek moom lay joxe kon loolu leer mag màggal sëriñ bi ki day laaj moofu day laaj mu ni lan mooy attey màggat mi nga xamante ni dem na ba ak magam mayeetu ko mu mën a koor ndax kon ban atte lañu atte ci moom moom màggat moom. màggat mi nga xamante ne dafa dem ba tële mënatut a woor wala koor di ko sonal lool kooka lislaam may na ko mu bañ a woor waaye day lele bis bu set am mudd ñeel miskin sopp nañ ko warut sax waaye dañ koo sopp ci ngirum Maalik rek mu lele bis bu nekk ginnaaw moom mënatut a fay te lott na ak mag dab na ko léegi kon day def bis bu set rek mu lale am mudd mudd nag mooy bar ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola lay lale bis bu nekk waaye duutu woor moom mag moomee ndax mënatut a fay jërëjëf mbokk mi nee na da doon julli mu dem ba ci biir julli gi mu fàtte ni jàpput woon muy laaj ndax julli ga baax na wala baaxul te doon julli ba ci biir xelam dem ci mu fàtte ni moom jàppul jàpp dafa bokk ci charte julli chartuha al istiqbaalu tuhrul xabasi wa satru awratin wa tuhrul xadasi eh, bu dee tuhrul xabas moom bokk na ci ay chartam nga fàttaliku ko ak it nga am kàttanu mën a setal sobe soosee taq ci sa yére wala ci barab bi ngay jullee senup safanak nak moy tuhrul hadasi moy labuk toj labuk toj mom dafa meunta ñak ci julli sa yo julle te labo jappo wala nga amé am toj bu boobaa julli ga day yaq sa yo ko fàttalikoo rek julli goge dang ko wara fay boo ko ci bir julli gi dangay dog julli gi wallahu alam ki momit neena na day sàkkuñu labire sangu farata la doon laaj mu ni ndax ci wépp wanag lañ ko mën a defee wala ba ca topp muy laaj ne sangu farata moom ndax jublu penku da cay lu ca mënta ñàkk wala déet. sangu ak laab mënees na ko defee ci barab bu nekk salle de bain ak fu mën a doon boo fa sangoo farata cangaay la wàññiwu dara. sartu ñu ci it jublu penku noo mën a taxawee rek ba sangu tam jàppandi ci yow. addiinu yusrun yuridullahu bikum al yusra wala yurid bikum al usra mbokk mi nee na kii dafa dugg ci lislaam waaye soxnaam tuubagul mu ne kon ndax mën nañu continuer ñoom ca sëy ba ñoom ñaar walla nan la ci islaam atte ku tuubagul mënee ko yow mi nga xam tuub nga dib jullit mënoo koo kontine mu nekk sa soxna boo tuubee sa soxna nekk ab yéefar da nga koy jàppal euh, da ngeen di tàqalikoo waaye su fekkente ne nag nim mu laajee dafa wax ne moom soxna si du yéefar waaye ab katolik la bu boobaa man mën na ko man mën nañoo continuer di sëy ñoom ñaar ndax nikaaxul mushrikaat nikaaxul kitaabiyaat dagan na ci dislaam waaye ab yéefar nag moom mm, moo dëgganuta euh, continuer di sëy ak moom